wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat wa kullu man qaddamani aw saaraat ونجني وحله أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعل سخودا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين ولتقضي مسايا رب العالمين وجل بناي بناء وافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بناي بناء علمي وامل بسنة وعلمي واجعل بناي بناء الاعتداء والتكفني كيد كل سيتداء السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi fi teew yépp di bokki taalibe ñu ngi leen di nuyoo nuyoo ba gën a tëdd di leen siyaare di leen balu àq di leen balu àq di ñaan sunu borom bon nu jégal di leen ndokkeel ci weeru tedd yu ñu nekk di weer woo xam ne bu màgg la wu tedd la bu bari ay ngëneel la di weer woo ne weeru jullit ñëpp la kon ñu ngi ciy ndokkeel jullit ñëpp di ñaan suñu borom mu dimbali ñu niñ ko tàmbalee nu àggalee ko ni te lépp luñ ci def baa nu yéene ko def suñ borom nangul nu ko boole ko ca jaamu yàlla ya gën a kawe te fulal nu ko te dencal nu ko fu yàq aggut ci bàkki Sëñ Tuubaa ginnaaw loolu nag am naa nuy yëkkati ay kàddu muy ni ma ko daa waxee muy kàdduy ndigal ndax mbo mbooloo mi bokk nañ ci ñi ci gën a tëlee wax waaye nag dañ du sañ suñuy kilifa jox nu ndigal nu delloo ko waaye bu dutoon loolu daanaka du jar nu yëkkati ay kàddu ndax ki ma ki toog fi ba jug ma toog fi di si matula daanaka li matoon a wax ci wax ji lépp wax na ko maa ngi koy tooñ léegi naan ko xawma lu may bëgg a wax ndax li matoon a wax lépp wax na ko te it baamtu lay doon ndax du weesu ak cant ako soññee ci sunu digg sëñ bi cant gi ñu ci jiital ki nga xam ne moom la yàlla jiital tey ci kanam njaboot Sëriñ Tuubaa gépp di wax kàddu yi nuy wax ci tuur sëriñ ko ak sëriñ bu ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak mboolem kilifa yi ñu àndal te ñu toog nii te joxoon ndigal ñuy yëkkati kàddu yi nuy wax ci seen tur di wax ne ginnaaw bu nu sante yàlla san julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam sant Tuubaa baax ñu ngi sant ki ko fi nekkal tey doon jëw yi ñam di seex Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko xam ne jëwut guddal ci diggam ak Tuubaa ci kanam ndax li wolof yi di wax naan lu ne fàng deesu ko jeex te mi ngi nii moom deesu ko wax ko amu bët su ko amu bët boo ko nee mi ngi nii du ko gis kon Cheikh Mountakha moom ay waxam ay ay ay jëfam ci Touba ci kanam akuk jàppam ci Touba ci kanam akuk bokkam ci Touba ci kanam moom ci waxam waxtu wu ne da koy fësalal boppam bu yàggul rek wax na ma ne ma sant naa yàlla lool ci bokk gi ma teel a bokk ci Touba ci kanam teel gi ma ci teela bokk sant naa ci yàlla nga xam ne kon bokk gi am na solo waaye teel gi moom da ciy sant yàlla ci lim ci teel a bokk nga xam ne kon teel gi ngëneel la ci kon ci ci bokk ci kon Touba ci kanam mënuñu lu du sant ko ak ñaanal ko suñ doomam yàggal ko fi lool te may ko kàttan ba pas-pas bi mu am ak yéene ci liggéeyal sëñ Touba na mu ko bëggee suñ doomam mayee ko ni mu defee ko ni nu ko kawe ci bàkki sëñ Touba te ànd ko nun taalibe yëpp ci bàkki sëñ Touba ñu ngi ko koy ñaanal baax di ko sant ndax jëf ji nga xam ne jëf na ko ci bëkk démb yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko ci Touba ci kanam te jëf yoo ko jiitu woon ñëpp xamoon nañ ko kon liñ man mooy sant ak ñaan ñu ngi koy sant di ko ñaanal yabal fi ndawit muy sëñ xaadim Jóob mi fi toogoon léegi doon fi wax te wax wax ju am solo loolu it doy na sëkk yëg na Touba ca kanam bàyyi na xel tubaati ca kanam defoo a Touba ca kanam safoo na Touba kanam loolu nag mënee su ko weesu ndax moom da koo moom ba mu ciy bokk booba jëw gi ñu yoon wi la woon tey nag mooy booba moom yoon mu ne woon tey tey na fi yem ma yem fi kon su ko moomee ba noppi nag nekk ca kanam di ko soññee dalal na xelum taalibe yi seeral na sunu xol rafetloo nañu njort ki ne liggéey bi sëñ Tuubaa nangu la kon ñu ngi koy ñaanal baax di itam sant it kilifa barab bii ñu nekk tey di sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne yàlla dogal na fii ñu nekk di Daarul Xuddoos moo koy yilif moo fi nekk nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha moom it ñu ngi koy sant moo mbooleem kilifa yi nga xam ne topp nañ ci ginnaawam di ak njabootam ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax yaatal na nu fi waxtu wun ko soxlaa ñu yaatal nu fi ci noonu ko bëggee ba bañ fiy noppi kon ñu ngi sant suñu Amadou Mokhtar bu baax moom it di ko ñaanal suñu boobam yàggal ko ci kanam njaboot gi mboo mboolem njaboot gi topp ci ginnaawam di sant nag mboolem kilifa yi nga xam ne yónnee nañ fi limees na leen jëw di baam te day guddal jataay bi waaye liñ mënta ñàkk a wax lu gàtt lay doon muy sant ñi nga xam ne ñooy mbooloom tuubaa ca kanam ci turu Sëriñ Habibu ni mu ko waxee woon mboolem ku ma bokk pas-pas wan ngeen ko ne ko wan nan ko ne ko noo bokk pas ndax wuy si nañ ko wuy siin woo xam ne kenn foogewu ko woon noonu ba koy yëkkati du ko waxee nii kon ñi ngi sant mbooleem waa Touba ca kanam donte nag duñ mën a ñàkk am ñoo xam ne des na leen beral cant ci biir Touba ca kanam tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi ci wàllu kuréel bi nga xam ne moom la ñu association sëñ Abdou Fataay gi jiite ko ci jamono yi mook sëñ Fallou Ndiaye mi nga xam ne Touba ca ci moom la ko yàlla jaarale ci moom la sosoo ak mboolem ñi ko àndal ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan mboolem yëngu buñ ci def yàlla nañu sëñ Touba nangul di wax ne ñi nga xam ne mëneesu leen a ñàkk tudd tey tey nag ñooy ñi nga xam ne bis bii ñooma muy waa social social moom danañ leen bagal ak cant donte Touba ca kanam gépp ñooy ànd sos doon social waaye nag dañ koo def ay pàcc lenn lu nañu am ñuñ ko dénk ñiñ dénk social nag yàlla dogal na def nañ ci jëf joo xam ne jëf ju kawe njort ñi leen ko dénk la kon loolu deesu ko mën a ñàkk wax deesu leen mën a ñàkk sant kon waa commission sociale ci njiitul sëñ Mourtala moom sëñ Abdul Fatah na ngeen xam ne sëriñ Abibu ak sëriñ Tàkko ak mbooleem mbokk yi ñëpp sant nañ leen yéen ak ñi ngeen ko àndal xam naa nag damay bañ bugg ci lim bi ndax bu ma duggee ci lim social ma mënumaa xam ku ci gën a doon jàmbaar te koo bàyyi fekk na ka nga tudd sax mën naa am nga bàyyi nga ko ko ci man fuuf moo tax bu ma bu ma ko tegee ci loxo sëñ Mutulaak ñi ko àndal day doy sëkk ki ñu ci dul mën a ñàkk a waxee mooy sëñ Moussa Amar mi nga xam ne moom moo ko jiite woon waxtu wi daaw bañ ko tàmbalee ba tey moo ko jiite woon te àndoon ko ak sëñ Mourtala sëñ Moustapha Dieng ñoom waaye yàlla dogal bi ñu jiitalee sëñ Mourtala ñu fa baat sëñ Moustapha Mor tegaat ko ci moom itam mu feddliwaat ak laxasaayam ci ginnaaw sëñ Mourtala nam ci doon doxe soppiwu ci lenn da cee gën a yokk pa séefam kon loole it mënuñu koo ñàkk wax sëñ Mourtala yàlla dogal na wen ji la ko njëkk jiite bu yàggul lañ ko jox ginnaaw bu ñu defee assemblée générale ba noppi lañ ko lañ ko ko fal jox ko njiit li waaye wax dëgg def na ci itte def ci pëstéef def ci jom joo xam ne wax dëgg yàlla jàppoon naa ne sax man mënu ko maanaa ni mu ci doxe jàppoon naa ne mënu koo doxe noonu wax dëgg def jàppoon naa ne euh, ci euh, seex su ndaw si la nga xam ne moom daanaka lu ci bare bare gaa yi def leen nangam rek génn ci waaye moom day jiitu day jiitu ànd ak ñoom te moo leen ci man sax daanaka wax dëgg yàlla jàmbaar la joo xam ne mu ne su ko ñàkk seeral di ko ñaanal suñ borom mu guddal aw fanam def ko muy mag te doon magum lislaam te mag mu liggéeyal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa nangu ko te boole na ko nun ñëpp nag waaye wax dëgg yàlla jëf na ci jëf ji nag ñi mu ko ni ma ko wax ak kenn moom mënut leen waaye nag njiit faw bu jiitoo day feeñ te ñam jiite bu njiit yeefus rek doxin yëpp day daal di yeefus waaye bu njiit góorgóorloo di soññee ñam jiitu dootuñ mën a taxaw faaw ñoom ñu jéem a topp ci ginnaaw moo tax nag ñoom ñi nga xam ne ñi ngi ci ginnaaw mi ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant bàyyiwuñ kenn muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy ku jege muy ku sori ñi nekk ci diaspora bi te bokk social ak ñi nekk ci yeneen dëkk yi te bokk social ndax social Touba ci kanam gépp moom social lañ bokk waaye ñi nga xam ne ñoom lañ dénk commission bi nag ñu ciy liggéey di ci dox guddi ak bëccëg ñooñu moom wax dëgg mëneesu leen ñàkk sant te ñu ngi leen sant cant koo xam ne lott naa ci ni ma ko sëñ bi waxee ak ni ñu ko yéenee lott naa ak sama sax mu génne ko kon sant nañ leen bu baax ndax bis bii kawe na njort lool noonu itam la ñuy sant nag mbooleem koo xam ne jàpp nga ci bis bi xam naa li ma ko waxee woon ñi ci jàpp ci wet yëpp moom lim nañ leen duma ma ci dikkaat di ko limaat di guddalaat ay wax waaye képp koo xam ne jàpp nga ci social bi wuy si nga ci rek ak foo mën a jógee ñëw bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan jëf ji nga ci def yàlla mi tax nga def ko gis na ko yàlla na la ci fay lu kawe su njort barki sëñ Tuubaa noonu it la ñuy sante mbooleem soxna yi soxna yi ay jàmbaar lañ yoo xam ne wax dëgg yàlla desuñ ginnaaw ci liggéeyu Touba ci kanam waaye desuñ ginnaaw ci social bi xam naa bu ma ci jiitalee soxna Bintu soxna Ndeye Mariam Mbacke danañ ma mën a danañ mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp ndax ni ma ko waxee woon ab lim moom boo ci xasee dugg da ngay bàyyi koo xam ne bu doon ak njàmbaar ngay ay jàmbaar ngay tudd danga nga naan moo jiitu jàmbaar yi ndax Touba ci kanam ñëpp dañuy ay jàmbaar moo tax waaye nag ña xam ne ñoom lañ jiital boo leen tuddee. ña seen ginnaaw ñëpp dugg nañ ci kon soxna yi ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp moom it ni ma ko waxee ñi ne fii ak ñi nekk bitim réew ñi ne feneen fu ñu mën a ne te bokk ci Touba ci ñëpp ñi ngi leen sant bu baax di sant waa scientifique nga xam ne ñoom ñooy euh, commission bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu saytu lu jëm ci xam-xam nga xam ne conférence bi ñoom lañ dénkoon ñu tànn ko waxtaan ko ci njiitul sëñ son bi daan ndooy mii ak sëñ Seexuna Lo Ngaabu ak sëñ Fallou Boussa ak ñeeñ ko seqal ñoom itam amel nañ leen ak cant ci bi ndax ñoom it def nañ ci it ju mat sëkk taxaw ci sonn ci ba tànn thème boo xam ne thème bu am solo la ñu jox ko koo xam ne it wax ku ko man la di sëñ Fallou bu sa asan gannaaw bu ñu santee waa scientifique ci coono boobu ñu ci daj ba tànn ko moom it ñu ngi koy sant ndax la taxoon ñu tànn ko bi mu ñëwee joxe na fe ba joxe lu kawe njot sax ci la taxoon ñu tànn ko kon sëñ Fallou bu sa asan it ñu ngi koy jutal ak cant bu baax di ñaan suñ boobam yàlla na dolli ab xam-xamam yàlla aw fanam yàlla na ko defal ngërëmu sëñ Tuubaa li nga xam ne taalibe bu ne moo la amal njëriñ tey ëllëg te booloon na ko ñun ñëpp nag xam naa cantuk Tuubaa kanam moom day làmbu mbooleem tubaati kanam gépp bu ko defee li ci des nag ñuy sant yàlla sunu doom mi nu boole sëñ Tuubaa ci tawfeexi ci ndimbalul yàlla ak tawfeexi sëriñ bi joo xam ne dafa wax ne dafa tànn ay taalibeem tànnaale tànnaale ñu am na mag mu mas wax ne ko Mbàkke man de dama sama sama waajur daal dama bëgg mu bokk ci yoon yi fekk mag moomu dafa jébbulu di liggéeyal sëñ bi waaye baayam ñàkk ànd ci jébbulu ga lool ba àgg ci génnee ko sax kooku loolu metti ko lool mu ñëw ci sëñ bi ne ko man de sama waajur daal bëggoon naa ñu dimbali ma ba mu bokk ci ndax xam naa ne bu ci bokkut daal man daal bi ma jébbuloo léegi daal bët yi may xool ak kàddu yi may wax tax na daal mbiram daal ñaaw naa ci njort lool sëñ bi ne ko fii de ngóor indiwu fi kenn yaa fu teewu fee ñëw kenn bu ci bokkee dana ñëw bu ci bokkul nag kenn mënu ko indi waaye kooka itam doon ko am pas-pas te yërëm mbaayam te doon ko amum xel mu xalaat xalaat ba yàgg mu ne sëñ Tuubaa daal li mu gën a bëgg mooy alxuraan mu dem bind ab kaamil ba mu àgg mu ñëw jox sëñ bi ne ko sama kaamil bii de fasuma ci lu nga ñaanal ma saa baay jébbul doon doon sab taalibe sëñ bi ne ko yow de dangaa jëndal sa baay sa sa baay da nga koo jëndal lii ak njëg la waaye kon demal woyi ko kooko dem woyi baayam ba mu ñëwee xisa bi daa gudd du du du fi xaj waaye ba mu ñëwee la ci am njariñ rek mooy ba mu ñëwee la jébbulu waaye ba mu jébbuloo ba muy doog ñëw dafa wane ak jàgg lool waaye fa mu mujj ak sëriñ bi daa jébbulu jébbula mbooleem lu mu amoon wëlbatiku wax doomam ji nga xam ne moo ko andi ne ko gannaaw sëñ Touba de yow laa def ngay sama ab sëriñ doomam ju ko indi sëñ Touba mu ne ko ginnaaw bu sëñ bi jàllee fi ma war tegaat ab sëriñ yow laa fay teg ndax lii nga ma defal ak lii ma am soo ma indi woon sëñ Touba du ma ko am mukk fii ma àgg ci sunu doomam it jàppoon naa ne am naa ab cër ci yàlla waaye keroog bi ma jébbaloo ci laa doog xam ne amu ab cër ci yàlla laa doog a daanaa gis loo xam ne damaa defee ne damaa àgg ci yàlla waaye li ma sëñ bi woon ak li ma gis laa xam ne la ma doon gis ak li ma liñ ma doon wan ak bi ma ñëwee li ma sëñ bi wan wuute ne na yàlla ak yàlli ne ko lëndëm lañ ma doon wan bi ma ñëwee sëñ Tuubaa la ma wan leer leer nañ seytaane ma doon wan boppam bi ma ñëwee sëñ Tuubaa la ma wan yàlla kooku nag képp koo xam ne am nga taw feexi mu tànnaale la waa ngaa xam li nga am kon sëñ Tuubaa bokk ci noonu mu ko waxee du ak farlu mayewu ko ñàkk cee bokk ak yaafus xañewu ko ak tànn la waaye nag ñun luñ def bañ tànn luñ ko defal ba mu tànn amul lenn luñ man ne moom luñ teg suñ loxo ne lii lii tax sëñ Touba tànnaa lañ ci ay taalibe lu tawfeex suñ borom kon nag loolu war nañ koo xam te delloo sëñ Touba njukkal delloo ko njukkal nag mooy sëñ bi moom kenn ku ne xam ne ne ba mu jógee yàlla la mas a bëgg ab yonenteem alxuraan mosu ceel dolli leneen lu dëkkam bi di Touba yàlla yonente bi alxuraan Touba dong la ci mas dolli ci loo xam ne itteema yoo xam ne bëgg na ko te Touba de dafa wax day barab boo xam ne suñ borom da ko senge kenn mosu fee def lu jaamu yàlla gaa yu yàlla yu bari bëgg ko mu bëgg ko suñ bi suñ borom ne tànnal ne wax dëkk bi ne ko tànnal nee na dëkk bi tànn ma nee na tànn googu bi ma tànn nag moo tax du ko yemaleeg lenn yow bi muy génn ci kër Daaru gi di sañ ci Mbàkke Bari bi nga xamee ne dugg na ci jàkk yi Daaru Xudoos yi doon jullit si baa fi la defee lixtikaaf gis yonente bi sallallahu alayhi wa suñ boobam xamal ko ne ko dëkk bii yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ne ko dëkk bii di Tuubaa moom aawal nañ la ko ba wenn ay du la fekk boo bëggee nag natt bi dal sa kaw ngir nga am lii nga bëgg da génn dëkk bi dem feneen loolu mooy sababus mu génn dëkk bi weeru koor la woon ba mu waree rek la daal dem Mbàkke Bawol dem sañ ci Mbàkke Bawol keroog bi muy bëgg a dem mag ñi dañoo jooy am lu leen metti lool amuk jaaxle lool ci sëñ bi daal dëkk bii mu sañ ba nit ñëpp wuy si ko fi ba liggéey fi liggéey bi mu danga ko fee bàyyi di demaat feneen daal jaaxal leen fekk xamuñ dëgg-dëgg baatin ba ñu jaaxle ci dem ci sëñ Bousso bi nga xam ne mooy kilifaam ci aada ndax moo soxna jaaw ñoo bokk ñaari waajur ñoo bokk lépp mooy nijaayam ñu wax ko sëñ Bousso bi ne ko sëñ bi de day bëgg a gental Touba di bëgg a Jolof ba mi ngi waaj te yow dong lañ defe ne mën ngaa wax ba ndax boo ci waxut ba mu fomm day su demee foofu dana metti te fii moom lépp ñëw na booba booba tubaa macha allah dégg naa sëñ Ebi bu nee na sëñ ba dégg naa sëñ Ebi ne sëñ Mbàkke bu sa nee na ko booba seetuk dëkk bi àggoon na ci bant boo sekk te képp da nga koy wër doo ko mën a am ci ci booba fii fii mu dëkkoon waaye teewut sëñ bi ne da ko fi bàyyi dem ba sëñ Bousso bi xëyee Mbàkke ñëw ne day waxtaan si ak moom ngir mu fomm yoonu Mbàkke beewe yu te toog sëñ Bousso bi mu duggee ci pénc bi dugg ci kër ga wanko ñi daa toow mu tàmbalee jooy di jooy jooy yu metti ba xaw leen a jaaxal mu ne damaa xam ne kii ngeen ma doon wax ne naa ko wax mu fomm tàyyi naa ko am foofu ndax xam naa ne kii moom li mu wax yàlla lu mu wax ci yàlla dëgg la ci moom ndax bu doon àddina du génn fii lii ku ko mën a am ci àddina ak fi jamono toll nga àttan koo gannaawal dem kii lu mu wax ci yàlla dëgg la ci moom ki yàlla donc taxaju fu mu bëgg a dem bay ba mu dem fa te xam ne fu mu mën a dem yàlla dana ko sàmm ba mu delsi doog wax sëñ bi la muy wax ak moom doog a wax ak doog a wax waaye keroog bi muy génn fii di dem mbàkki bayoy wax ne pàkk ngi boo xam ne day géntalu ma ko gannaawalu ko pàkk ngi boo xam ne day maa ngi dem waaye yàgg yàgg fi laay delsi pàkk ngi boo xam ne day ëllëg kuñ naaw dimbali danga fi ñëw pàkk ngi boo xam ne day àddina sépp dana tàkk ba doon genn daay ku fi ñëw doo mucc lii la waxoon keroog bi muy génnee fii di dem Mbàkke ba kon nag bu nu yàlla defalee tawfeex nu nekk ci pàkk bi war na noo xam lin am war na noo xam ki am war na ñoo jéem a am itte nag ci jéem a liggéeyal sëñ Tuubaa ci pàkk bi ndax bi mu fi ñëw dafa wax ne ñaari dong laa fekk windew ak saawas nag ñaar ma fi indi daw nit ñi ak daw la ci nooxal ñi waaye ñaar laa fekk windew pël ak saawas nag ñaar ñoo ma fekk kuy wut yàlla képp yàlla tax koo jóg te jaaxaluma lu mu bëgg mën naa koo defal kuy wut àddina yi jaaxaluma yàlla jox na ma àddina ba ba mu doy sëkk te soxluwuma ko ku bëgg ñaar yëpp yi mënal naa la ko kooku nag ku yàlla booleeg moom loo mu ci yow la kon nag ginnaaw moom am nag bëgg muy pàkkam bii mooy ak bëggam te waxoon na ne mucc balaa kenn mën a mucc da ñëw ci pàkk bi ñun suñu borom def ñu dëgg pàkk bi war nañoo jéem a delloo njukkal pàkk bi nag kon tubaa ci kanam lii dong la mooy dëkku sëñ Touba bii nga xam ne sëñ Touba amutoon genn bëgg ci àddina guddul moom moom la Touba ci kanam jóg ngir liggéeyal ko ci ci lépp loo xam ne ab dëkk mënu koo ñàkk te ñu ay nit war koo def taalibe yi sëñ Touba yi bu ñu amee pas-pas mën nañ ko ndax li sëñ bi waxoon na ñaari na ne ëpp te ba mu ko waxee ba tey mi ngi bëgg a yàgg waaye taxagul ñu mën koo dajale kon nag loolu it ak yaafu sunu yaafu sa nun taalibe yi rek waaye waroon naa mën a mat bu yàgg bi ba mu yëkkatee kàddoom taalibe bu ko dégg te am pas-pas nam noonu ma ko waxee woon waaw nga cee mën a bokk ca saas ba tax na daal ñu ngi ci gën soññ sun bopp di ci gën a soññ ñëpp ñu xam ne lii daal moom bëgg sëñ Tuubaa goo xam ne fi ko teg weesu wut xam nañ ne Tuubaa moom a bëgg ma goo xam ne yëmaliwu yëmaliwu ko ak lenn yëmaliwu ko fenn daana wax ne fu ma mën a nekk dama faa jaar waaye Touba laa dëkk te fa lay fa lay ñibbi yàgg-yàgg waaye sun borom loo gën a bëgg dala cay natt ndax da koo natt woon ci dëkk bi mënu fee dëkk coow bi ñu ko fi jëlee bi ñu ko jëlee jolof di ko yóbbu njaaweem bi ñu fi tolloo suñ borom da ko ne ba mayuma la sa bët dal ci dëkk bi nga sëñ bi daa gëmu ba weesu dëkk bi sëñ daa Abdourahmane loo jàpp ci loxoom di ko wamat ba weesu dëkk bi ngir mënta xool dëkk bi amul ndigalul xool dëkk bi waaye ñun ñi am tawfeex yi nag booba coono bépp mu daj ko ba noppi moom mënu koo dëkkee ñun ñi am tawfeex yi dëkkal ko fi kon koy wax di yàlla war na noo am nag jom ak itte ak delloo ko njukkal ju toll ne lam doon sonn ngeew noonu ñu jéem koo feeñal ndax coono boobu mu doon daj ba yàlla di ko nattoo loola mu ko teg lépp jënn jëmam képp doxu doon bu doon jëmam jëmam képp waaw na ba nopp dem bu yàgg waaye moom xam moo xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko taxoon a jug moo ko taxoon a jaayante moo ko taxoon bi mu jëloon ci ci coono yam doon dañ mu jël ko ngir xam mu xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu du doon a xeet wi ñëpp danañ dem sawaw am na mag moo xam ne sëñ sëñ Abdou Karim bi dafa ne kenn xamuma ku dul yàlla ak yonente bi kenn xamuma ku dul yàlla ak yonente bi bu ngeen génnee ku leen ne xam na ma ku dul yàlla yonente bi bu ngeen ko ñemee ne leen ko waxoo dëgg mu ne ko waaw ah, Mbàkke loo dëgg la waaye man daa am na lu ma xam ci yow mu ne ko loo xam ci man mu ne ko bu doon yow ñun ñëpp sawar lañ jëm sëñ bi ne ko loolu moom sikkuwut tawakkal doy doy na sëkk daanaka liñ doon wax lépp bayit yooyu mën na koo firi ndax loolu mooy seey gim seey ci yàlla ba léppam di yàlla amul lenn képp koo xam ne jéem ngaa léewtoo moom yàlla ngay léewtool loolu la wax ci bayit yooyu bu doon wax waaye loolu lépp li muy tegtale rek mooy jox gim boppam jox boppam yàlla ba desilu yàlla dara ci boppam waaye nag yàlla ba mu koy fay suñu boppam da du jeexal te sañ-sañ bi tàmbalee tàmbaliwut fenn yëmut fenn te mane nu ne ba mu koy fay daa fab li am njëriñ àddina la fa teg ci loxoom na ne yéen ba baa xam ngeen ne ay jaam la ay jaam ngeen yu ma jënd dama dama leen a jënd suñ borom ma leen jaay ba ma moom leen su ma neexoon di leen liggéeyloo ba ngeen faatu ma yóbbu leen sawara te kenn du ne ma lu tax su ma neexoon du ngeen ma defal dara ngeen tëdd nelaw ba yóbbu ba faatu ma yóbbu leen àjjana te kenn du ma ne lu tax kooku nag googu moomeel nag kon ka moom moo fab jox ko ne ko man mi moomoon maa la may kon loolu moom daa leer nañ wala maa jaay kon ku jënd yaa moom la nga jënd kon Sëñ Tuubaa moom nit nag bu la moomee la nga sa alal mët ta wax kon buñ jéem a denc alal buñ jéem a fàggu alal li ñu am lépp nañ ko delloo sëñ Tuubaa ndax mooy li ñu amal njëriñ tey mooy li ñu amal njëriñ ëllëg waaleykum salaam wa rahmatullahi misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani Tuubaa baat مثل اسمها بجاه خير من نبات وسليا علي عبد الصلاة والي وسبي سوي السلات وكل من قدمني أوسارا فنجني واخلق له أوسارا وكل من آبني أو مالا إلا يفرس خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فابلغوا توبة واستسلاما فكل من أساس النوبيا فليقل قلبه يا ربي يا فلتكفني أسى جميع العالمين والتقضي مساء يا رب العالمين وجل بنائي بنا أوافيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وعلم واجعل بناء بناء الاعتداء والتقي عن كيد كل سيتداء